tey ci ajuma ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2019 xalif général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké joxe na faratay ajuma ci jumaa jii di mbul julli googu nag kii di doomam Serigne Bachiru mbul moo ko jiite woon laata dañuy julli am na waxtaan wu am solo u fa sëñ Mahdiou Diop def jëmale ko ci jaam bi digganteem ak boroomam boroomam mi ko sàkk ak digganteem ak i moroomam nan la ci war a taxe ba mu rafet ba nu jullee ba noppi Serigne Mountakha Bachir Mbacké moom jël na kàddu gi jëmale dëggal loolu nga xam ne Serigne Mahadiou loolu la wax waaye mi ngi soññ taalibe yi ak jullit yëpp ci ñu moytu àdduna ak i àndandoom lu mel ni bakkan ak bànneex waxtaan wi dolli na ca leneen lu am solo muy njàngale mi nga xam ne war nañ cee dugal xale yi muy njàngaleem diine ak njàngaleem alxuraan ba tàggat leen ci ba mu mën a jàkkaarloog musiba yooyu di dox seen digganteeg seen borom ñuy fàttali rek ne jullit ajuma gi nekk na fii ci mbul am solo mbooloo mu bari mu takku teewoon fi dëkk boo xam ne bariwul lu mu gis mbooloo mu toll nii